ñu naa ñëpp fii laay tàmbale ci seen revue de presse teel sa kaas nga guux bala ngay naan mox la xew ci réew kono sunu gaal gi yëgle kaay gi Cerno Njaay meek Ousseynou Ñang mi yëgle kaay gi ne ci seen scooter bi nu yéegoon di daw alir ba mbëkk kawiyon gee tax ñu faatu yëgle kaay gi ne kenn ki amoon na soog bu doy waar bu yéemee de lañu nemmeeku ci VDN gi ni ki démb ci suba gi naka la seen scooter bi ni namax ci kawiyon ay sénégalais yoo xamante ne ay témoignages lañu yëgle kaay gi ne yëkkati nañ ca ay kàddu wax nañ ca attaque terroriste ba ñoom day nee ñu jamono yooyu métti ba métti jeex jamono du ko gën a métti ci réew mi on doit la vie sauf à un coup de fil yëgle kaay ñoom day lañu leen xamal fësal leen ko moo di bu ngeen fi teewatee bu leen jàppatee dootoo leen ko doole ndax des na leen faat li ci am ba des daal moo di seeni wata ñoom fekke wunu ko fekkewu ma dewu ma wutiwu ma wuy jiwu ma yooyu la kàddu ko ko yëkkati Ousmane Sonko lay wuyoo l'observateur yëgle kaay ni ma Sonko désobéissance à l'appel ci procès diffamation bi diggante mag Mame Mbaye Niang moom Sonko ne dootuma wuujeeti benn justice ci réew mi askanu sunu gaal moom Sonko ngay fësal ak di xamle naa je n'ai jamais mësuma violé ma ngay tontu ca digganteem ak Adji Sarr wax ko ñaari yoon ni je n'ai jamais violé yëgle ma ngay tontu ca digganteem ak Mame Mbaye yëgle kaay gi ne Sonko lànk kandaar la def yoor yoor yëgle kaay ni lii kay nees ko mën a di pédu la résistance moom Sonko day dul wuy ji benn yoon benn justice ak état boo xamante ni yëglekaay gi ne dafa injuste Sud Quotidien yëglekaay ne ma boobaak ne yaa ngi wax rek xanaa da ngaa fàttali ki tey ji le procès mag Mame Mbaye Niang bile tëtëtë tey ji kay huit mai décisif dëgg lees ko di pay Ousmane Sonko xam le ni miiru parquet ba du ko gis yëglekaay gi ne ma Sonko daal ab campagne de désobéissance dëgg la woote lànk kandaar ñaali bañ na Le ko mën a wuy ji mu ni maa lànk kandaar je ne répondrai plus à justice dootuma wuy ji mukk justice bu ni mel enquête yëglekaay dëggal ni Ousmane Sonko de convocation bi nee du ko wuy ji Walf Fadjri quotidien yëglekaay ni ma xam nga lu mu woote l'équilibre de la dëgg la woote Les Échos yëglekaay ni ma yemul ci boycotté de ma ngay menacer si juge ya ma ngay menacer juge ya waaye itam avertir njiitum réew président Macky Sall avocat yi Mame Mbaye accord ñu lijjanti ko mu jeex sursu a yëgle kaay ni ma Sonko day la mu woote moo di réunion conseil municipal ca mairie ba nga xamante ni moom lay dirigé di ko doxal di Ziguinchor doon fa jaraaf yëgle kaay gi ci jamono ji nga xamante ci bisub tay bi lañu dàqoon diggante ma mbay ñaar revue de presse du jour ko xamle café bala moo neex dina saf sàpp ak jar sursu a yëgle kaay moom day la ñu fësal xamle ko moo di ay awokam jotuñu convocation vox a ñàkk fayda ma naan nag réew président Macky Sall na wattu li nga xamante ni moo di benn sang maanaam coow lu metti fatt tara ci réew mas ko sunu gaal gi la Ousmane Sonko daal ci gàttal la mu fësal xamle ko moo di wuy jiwul tey wuy jiwul ëllëg nee na violé wul diffamé wul turbine yëgle kaay des médias gi jox kàddu gi ki nga xamante ni moo di njiital des médias boroom gëm sa bopp yëgle kaay ne kooko bugaan gi dani lay wuyoo moom muy wéy di continuer ci xeex bi nga xamante moom lay xeex ci sëmbile ma nga naan askanu sunu gaal sénégalais bu ne am nga responsabilité xeex li nga xam ne moo di système bii réew mi quotidien yëgle jox kàddu ki nga xamante moo di Farba Senghor moom fësal xam la ni ànd ak njiitu réew mi président Macky ci da ngay ànd ak moom rek lépp lu mu wax nga ni waaw libération yëgle ni ma kii bëggoon lu neex Ousmane Sonko ba mu yëkkati ay kàddoom wax ca kooku Oustaz Assane Seck lay wuyoo yëgle gi ne ñu toll ni tembe de ma ca garda wi ni ki démb waa sûreté urbaine de ñoo ko interpellé yëgle kaay gi ne ma ña ngi ko fekk ca sibi xutaan yóbbu te dara dara mu def di affirmer naan Ousmane Sonko day faw candidat gagné yi présidentielle yi ñu jëm wala sax moom Ousmane Sonko bu nekkul candidat réew mi tàkk addu yamu yëkkati dee ko dugal moom Oustaz Assane Seck ba mu nuy sëmbax tax mu nekkaar daa wi keneen kanu arrêté kooka Cheikh Gadiaga lay wuyoo ginnaaw interrogation gi mu am ak dikk yëglekaay gi ne téeñanu ko bés bi la suur yëglekaay ni ma xam nga sécurité maximale la sécurité ba sécurité jeex sécurité di ëpp doole sécurité bi ñu taxawal ngir rek procès bi la ak manifestation F24 bi yëglekaay gi ne ngir sàmm jour yëgle kaay ni ma pdf di Pape la mu yittewoo du lenn lu dul pale jamono ma ma nga naan moi président de la république Déthié nga xam ne moo di programme am laas ma ngay fësal wax ma ba itam ci bu doonee président réewum askanu sunu gaal gi la ci jooji la jamono day Amadou Ba ma ngay galvaniser ñi nga xamante ni ñoo di jeunes yi di wax ci bilan projet xëyu ndaw yi le soleil yëgle kaay ni ma kaay ma xol 66 emplois la créé mu nekk cent pour cent de réussite te ñoom ci seen jëm bopp objectif bi ñu tànnoon ni moom la ñu war ci ay dong la noonu ay ca ci ñàkk noonu ma daal di daw ca la nga xam ne moo di wéq jiital ga yëgle kaay gi ne Habib Diallo lan fa fekkati de ndaanaan ku li fàttaliwul ndaanaan bi jamono yi muy wane boppam record yëgle kaay ma Diallo kay frappé na à nouveau woneeti na boppam de moom Diallo fi mu toll nii tembe puissance li nga xamante ni moo di jàggi ruur gi làmb yëglekaay ne ma ña cay di acteur làmb yëglekaay gi ne nii ki tey ji li leen njiitum réew mi président Macky Sall fa seen recevoir ca palais ba noppi nag ngir déglu leen bu baax a baax a baax yëglekaay gi ne ma kaay ma waxal mbëri de mise en place 15 heures audience ba 16 heures la ca dëgg-dëgg kon mbërum làmb yi tey ñoo xewle sëy laatir bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm a fekk euh, tàmbaleeku ngeen dégg ko euh, mu nekk mbir mu doyati waar waaw mbir mu doy waar trop trop trop vraiment ñu gis euh, li nga xamante ni moom moo xew ca VDN ba ab scooter bu ay gone yéegoon di daw alir ba namax ci kaw avion boo xam ne dafa taxaw fa mu taxaw ba faatu fekk leen ci ñu faatu si le mu nekk mbir mu metti lool te doy waar donc ñuy wax rek ni gone yi gone yi gone yi encore une fois. moo ndax may laajte rek ndax may laajte rek ndax daw ndànk dal ndànk dara da koo gën ci réew mi ah waaye si xam nga ne camion bu gaare ngay daw di daw di daw ba dugg ca loolu nag métti na te yéeme na te doy waar nag ah nanu mooy tondiku nanu mooy tondiku bu baax jéem a xoolaat jikko yi chaque jour rek mooy li ma leen di wax jikko yi jikko yi nañ koy xoolaat bu baax a baax a baax xool li nga xamante ni leer na ni buñ ko defee am ci ndam xool li nga xamante ni buñ ko defee Euh, euh, euh, am ci li nga xamante ne moom moo di mooy loolu nu ba ko noonu laay profité nuyu képp koo xamante ne yaa ngi may teewlu di leen jox seen wàcc bu baax a baax kontaane leen itam ah, ci teewlu gi ngeen ñuy teewlu ak ni ngeen ñuy toppee <laughs> ci réseaux sociaux yi <laughs> yéen a ngi ñuy topp ba partout macha allah kontaan nañu bu baax a baax am na ñu bare bare bari ñu ma woo démb ak tey naa ma dammeel man yow rek laay topp kontaan naa ci yéen bu baax a baax a baax a baax gis ngeen liggéey bi moom waaw gis ngeen dañ koy gëm rek après comme li ma abaa xool rek gëm ko bëgg ko après mu ñëw quoi leneen donc loolu la rek ñu ngi ci kawam et eh, ñu ngi ciy def lu man ak lu nu mënul ngir rek mu daal di yegg si yéen ñi nga xamante ni yéenay samay soppeetem ngir nu àndee li nga xamante ni moo di liggéey bi àggandoo waaw dem ca kaw yaa gën a naw ay mi ngi noonu yi nag mënul ñàkk ñu jaajëfal bu baax a a baax ñi nga xamante ne ñoom ñoo do commenté ñëpp ah ñi commenté ñëpp faaw ñu jaajëfal leen jox leen seen wàcc waaye xamal leen ni leen dooley jën ndox la sunu doole yéen ñuy teewlu la kon nag ay ñu daal di lim tur moo tax muy bëgg ngeen di commenté ndax seen tur yi di man di feeñ di fës ah waaw waaw di bégg bu baax a baax jibi baax Papa Diop maa ngi koy nuyu Pablo di bégg Aboubacar daaboo Pullo maa ngi koy nii bu baax a baax El Hadj Sakho également Cheikh Oumar Diop itam Mbàcc Massamba maa ngi koy bégg bu baax a baax a baax Aïssatou Dramé Amadou Dieng du Diouf. Euh, Kéba Dia maa ngi koy bigi ba baax Laat Diop ak Laat Guèye sama ñaari laat yi sama gaañi Mor Seck ñoom Oumar Diallo Dame Kounté également Cheikh Wade maa ngi koy bigi bu baax a baax a baax di bigi képp koo xamante ni yaa ngi nuy teewlu seen mbokk seen xarit Fall Damel surtout pour seen bàyyi Serigne Saliou Mbacké jox leen dig daje mbokk yi ba suba ak ak salaam jërë ngeen jëf